fàtta nag Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye tubaarkàlla xale ba am jom la di secrétaire général Fats Club bu Pikine bi topp ci ginnaaw Fat ànd ak moom liggéey bi ci kanam tuuti rek dinañ joxe seen numéro waaye balaa boobu nag damaa bëgg ñu seet sama xarit sama soppe xale bu am jom xale bu mën a sikkar tubaarkàlla kooku ne naa la sikkar boo koy wax ci Sénégal balaa ngaa tudd kenn di nga ko tudd ñu koy wax Pape kooku réew mi xam na ko tubarkàlla dootul nuy warante Sikaru laa moom ku ne xam na ci cër wu rëy la ci am comme ci jiituwul rek jiituwoo ko ci moom Pape Faye moom ba tax na nag clip bu bees bi nga xam ne génnee na ko tama topp ko ci man maa topp man maa ko ne Pape dimbali ma mi si biir na ko def clip ngir yàlla damay sentir morceau boobu dama ko bëgg mënuma Omaro danaa ci taxaw rek sa bopp def loo man sikar ko ngir sa jëmm ji ba tax na Pape boo ko sikaree def ko clip ngir sama jëmm ji ngir jëmmi soppe yi ah rafet na na ñu ko soppe ñu seetaan ko dund mbégte mi dund li nga xam ne mooy Sikaru laa bi ñu seddal xol yi te ñëwaat ci jàmm ak salaam Moussa Coulibaly le grand réalisateur boo noppee rek ñu dem seeti Pape Faye te ñëw bisimilah. ku sopp Serigne Touba magi ci Ibra Faate نويت شكر المالك kuutal maase sëñ bamba amul maasa man de duma kuutal maase sëñ bamba amul maasa man de duma ko utal maase sëñ bamba amul maasa man de duma ko utal maase sëñ bamba amul maasa man de duma ko utal maase xaadimu rasuul amul maasa man de duma ko utal maase sëñ bamba amul maasa man de duma ko utal maase Baay Faal saan ndeysaan ndeysaan tubarkàlla tubarkàlla lii foor na lii dara mënu koo fay ci àdduna xale bu am jom boobu tubarkàlla di Pape Faye nga xam ne yaakaar naa ne réew mi keneen la di présenté ci wàllum sikar waaye dootul jëm ji ndax bay na ci waaram ba mu sëkk tey nag ñi mu bokkal géew bi xam nañ ko ñi toog seen kër yi muy way muy yegg ci ñoom xam nañ ko mu nekk koo xam ne tubarkàlla moom Pape Faye yàlla ko yàlla dafa jàmm tey nag wéral baatam tey nag guddal ay fanam euh, sikar si nga xam ne mi ngi koy def jëmale ko ci sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou ko gën a man ci bàkk borom Touba Pape Faye ñi ngi bég ci yow loolu doon teewee boobu di am dimanche ca Pikine ci fans club bi nga xam ne mooy Omaro Jàmm ji te soxna Fatou Thiam jiite ko ànd ko ki nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye nanu woote ci numéro yi numéro Fatou Thiam mi ngi ci 77 704 69 16 77 704 69 16 77 704 69 16 loolu mooy numéro Fatou moo géré euh, fans club bi nekk ca Pikine ñoom la ñuy seeti dimanche ji di ñëw incha allah ka nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye numéro mi ngi toll ci 77 349 57 34 77 349 57 34 77 349 57 34. tubaarkàlla nag ñu leen gërëm bu baax a baax di leen sargal ndax ñu ñu baax lañ tey nag am yéene loolu ci liggéey bi yàlla na ne yàlla defal jàmm ci barke Serigne Touba ki ñu gërëm nag di ko sant mooy suñu sponsor leader di Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall na ma leen koy waxee rek saa ne tubaarkàlla fu may dem dama koy yóbbaale ah ndax mi ngi ci man waaw waaw mi ngi ci man fu may dem dama koy yóbbaale mi ngi nii ah yaakaar naa ne yëngal na réew mi ndax tubaarkàlla ajuma ji weesu bi ma ko fi indee euh, wax ci li ma ciy wax bi ajuma ji weesoo daanaka ba tey jii may wax ak yéen ci àjjuma ji dellu si nit ñaa ngi may woo di dem ca moom di ko fa jëlee di ko jëfandikoo di ci gis résultat muy dama leen ci waxoon rek suñu sponsor leader bi nga xam ne tubarkàlla yàlla ko baaxal muy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu am jom bi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu baax mi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu yiw mi moo defati lii nee naa leen lépp lu nekk ci boutique ba rek ni ngeen ko gisee ci publicité bi danañ ko indi fii benn par benn d leen ko tegtal bii nag ñu indi tey sunguf la na ma ko waxee woon rek nit ñi nga xamne yalla da dogal ñuy tox te mënuñ ko bayyi ba dem ba min ko mu bok ci ñom ba bayyi cigarette nek lu leen jafé jëm yoy nanu xamne sen seen garab ñëw na mi ngi ni taxaw ñi nga xamne di yalla da dogal ñuy jëfëndiko ndox momé nga xamne ne tubarkàlla daa saf xorom bëgg ko bayyi mënuñu ci dara doom yi nga xamne sonal nañ ci seen waajur ba ngi sonal ci seen mak ak seen rak ta seen mbokk bëgg ñu koy jëfëndiko waye mënuñu leen dara kii ci gaaw ni ngeen koy gisee nii ci kopp bu ndaw beeg bopp bu bopp weer bi nii la bari njariñ niit la amee jom niit la mënee li ko war moom moom waa ji jàkkaarloog man tubarkàlla nan koy jëfandikoo yomb na boo xëyee suba ba boros ba noppi rek da ngay jël boros bi boo defee sa boros aada ba pare da ngay jël boros bi capp ko ci li nga xam ne mooy poudre bi boo ko ci cappee boros ko ci say biir gémmin tubarkàlla boo noppee raxas sa gémmin ba mu set dem toog boo ko defee incha allahu rabbi yàlla dina la tëkkalik li nga xam ne mooy tuxub cigarette wala naan ndox moomu tubarkàlla nga xam ne ndox mu ni teral la mu naf mu sa xuur mu saf xorom moomu ne yéen mbokk te spectateurs yi bu leen ko kenn waxaat dem leen ngeen wuti ko ci lu mu gën a gaaw gën a baax numéro bi gis ngeen ko dana leen ko joxaat ci kanam tuuti incha allah balaa ñuy tàggali ko ak yéen tubaarkàlla nag gërëm ak cant ñeen na ci sama diggante xale bu am jom bii di Babacar Ndiaye borom daaru salaam couture njaay jaata njaay yàlla na la yàlla defal jàmm tubarkàlla njaay xam nga ne sagal nga ma njaay sagal nga sa nawle xoolal fii ngay génn ak man rek njaay xoolal nii ngay jëfalante ak man rek tubarkàlla ci ay xeetu dara njaay ñii ngay jëflante ak man ci ay xeetu modèle yu bees modèle bii nag mi ngi tudd daaru salamisation mooy modèle bi nga xam ne tubarkàlla moom la ñu soloon ajuma ji weesu muy daaru salamisation Euh, Abdou xale bu am jom boobu di Babacar Ndiaye jàmbaari Daaru Salaam yi ki nga xam ne mooy góoru soxna Faati lii la génnee ci lu bees tàkk may ko waa Daaru Salaam ndax nee na ma Omaro ma ne ko naa mun ma amuma lu dul maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam amuma lu dul Serigne Dame Atta ba tax na yow njaay jaar sa njaay cër ga nga am ci réew mi fekk nañ la Touba gis nañ na nga mel kër sindam ak gis nañ ni cër bala yalla defal kër mam Cheikh Anta ba tax na yow njaay jaar sa njaay la yalla dafa jàmm commencé rek taral nga ko njaay barki Serigne Touba ñun nga mujjé taral ñun nga mujjé solon bubu commencé njaay taral nga ko né na la ku la top rek ak ku tak ci yow rek ak ko bokkoon rek njaay dimbali nga ko ci lu nga am yow babakar Njaay borom dal salam kuti né na la ñaw ak artiste ak fen télé ak émission doxul sama diggante yow njaay sama xarit nga demb tay soga ñew yalla mo moon bi ñuy xamante yàlla duñu boole ñuy bëggante ngay rëkkat sa teraanga di ma defal boobu feeñu ma télé aw ma émission ba tax na njaay kóllëre bi bu ko yàlla doxal ba tey ji amul lu sargal la ci màggal la ci béggal la ci te ñaanal la yàlla defal la jàmm yow Babacar Ndiaye yàlla na yàlla wéral say cër te guddal say fan maanaam clip bi yaa ko moom tubarkàlla njukkal la war na njaay jaata yaay borom bopp Mbàkke njukkal la war na to do, so don't yaay fekk ku ñëpp xeeboon lool nga defar ko ban koy yaay fekk ku ñëpp xeeboon lool nga defar ko ban koy yaay fekk nit ku ñàkkoon lool nga teral ko ban koy nga defar ko ba mu baax yaa gën ci ñun Bamba Seex man ci ñun yaa gën ci ñun Bamba jaajëf yaa man ci la war naa Mbàkke yaaw sant raw li wax yàlla alxuraan ne la in sakartum la azidannakum wax ji leer na yàlla ko waat sax raw nga gaañu ñëw leen Cheikh Béthio la mooy réer na maa ngi gaaw yaa nu goral tax nañu sant laaw gaal gaa ku ci tabi raw fa Cheikh dem fa moom ba ñam la mu doon xam ne moom yaa nu teral way la lu war la Mbàkke yaa yaa nu teral way la lu war la Mbàkke yaa yaa nu teral way la lu war la Mbàkke yaa yaa mën ci ñun yaa gën ci ñun Bamba jaajë yaa mën ci ñun yaa gën ci ñun Bamba merci yaa mën ci ñun yaa gën ci ñun Bamba parti fay lii ci àdduna gisuma ko tubarkàlla sama gan bu màgg bi sama gan bu tedd bi di Ousmane Baye Fall yegg si na nag ci plateau bi tubarkàlla tey nee naa leen fii daa war a neex daa war a tàng jër warul jeex ndax làng la goo xam ne làngu baay Fall la làngu murit la làngu taalibe la tey nag yaakaar naa ne Ousmane tey moom dafa tàng jër ndax li mu fi tey ci ay pièces ah ndaanaan sakarkat waykat buy teew fii mos ko fi indi gars yi ñett rek lañ daan indi ci ñeent waaye tey juróom fukki juróom ñaar ngi fi tey fii moom dana tàng cool yaa ngi fi talmbat yaa ngi fi mbëng yaa ngi fi jémba yaa ngi fi tubarkàlla njaaj yeeg euh, lu ne ngi fi daal asiko yeeg lu ne ngi fi keleng keleng yeeg fii daal moom tey dana neex bu soobee yàlla ba tax na nag tubarkàlla balaa jublu ci sunu ndaanaan bi nga xam ne moom la ñu dara tey mu Souman Baye Fall mu woote bis bu rëy nag waaw xam naa danañ ci xuus ci kanam tuuti waaye nag balaa boobu dañuy jaale sunu yaay ju baax ñu koy wax soxna Aïcha Kane soxna Aïcha mu Cheikh Béthio Thioune sunu yaay la sunu soppe la sunu lépp la rakkam bu góor dafa wàcc liggéey ñu koy wax Cheikh Omar kan Cheikh Omar Kane rakk la ci soxna Aïcha Kane mu Cheikh Béthio ñu ngi koy jaale te di ñaanal yàlla Euh, di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam yàlla xaare ko àjjana it ñu ko koy ñaanal bu baax a baax di ko jaale képp ku bokk ci njabootu Cheikh Béthio moo xam soxnaam nga moo xam doomam nga wala ngay taalibeem ñi ngi lay jaale Cheikh Omar Kane moomu tubaarkàlla nag ñi ngi jaale ki nga xam ne mooy Dieynaba Lam Dieynaba Lam wàcc liggéey jamono yi weesu di rakk ci ki nga xam ne mooy Adja Kiné Lam sunu yaayu bopp jooju ngi ko koy jaale bu wér a wér a wér Adja Kiné Lam ñu ngi koy jaale euh, magam boobu wàcc liggéey di Adja Dieynaba Lam di ko sargalit lu bëree bëri di ci jaale ki nga xam ne sunu yaayu bopp la ñu koy wax Adja Soda Mama Fall kooku na xam na sunu diggante ak moom tubaarkàlla yàlla ko yàlla defal jàmm ci jaalewaale sunu yaay ju baax jooju nga xam ne mooy Adja Xaar Mbay ma jaaga kooku sunu bopp la Adja Ndey May ma jiin ma sunu yaay bopp la ngi ko ci jaale Adja Faatu Géwél Juuf sunu yaay bopp la ñu ko ci jaale tubaarkàlla di ci jaale jaale ki nga xam ne mooy Adja Daaru Mbay sunu yaay bopp la moom it ñu ngi ko ci jaale di ci jaale waale ki nga xam ne mooy Adja Ndey Faatu Njaay sunu yaay yooyu nga xam ne doon noo sopp rek te yàlla tax fii may wax ak yéen lii xew ki télé yi bari na télé yëpp xumb na télé yëpp neex na waaye man maa mën a giñ ci Serigne ne Omar mu Cheikh Béthio lañ jàkkaarloo moom la seetaan ndax yàgg nañ ko du ba ma leen xamee wala ba ma déggee seen yóbbante ci man laa xam ne ñu ngi may seetaan ñu ngi may seetaan te booba xamuñu ma ba yàlla dogal xamante ak kóllëre ak njaboot gu war ci diggante maam ak ndey ak doom daw ci sama diggante ñoom ba tax na sunu yaay bu yooyu yaay yu baax yooyu nga xam ne ñooy meeru Sorano yi te def ci réew mi loo xam ne tubaar tubarkàlla kenn du leen fàtte yàlla na leen yàlla defal jàmm te wér seen cër. sama ma dalal nag yaakaar naa ne tubaar tubarkàlla xool yëpp dana sedd waaw képp ku bëgg dégg dëgg nag ci sang bu tedd bii di Cheikh Ibrahima Fall yaakaar naa ne di kontaan Ousmane dama lay nuyu boo nuyoo ñu may sa clip nit ñu xool la. xool la nga way ci bi xam yaay kan ñu doog a ci plateau bi sëñ Ousmane nuyu naa la ziar naa la. Omaro maa lay ziar baax. maa ngi lay bëggee. di la ziar baax. ndeysaan. di la ñaanal ci barke mm-hmm. di ñaan li Serigne Saliou séddale yàlla bu la si kenn ëppale. amiin. di ñaan émission bi na ko Serigne Saliou téel boppam. amiin. di ziar nag Serigne Saliou Mbacke mu Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Ibra sama xarit. est di ziar baax sama sëriñ sëñ Assane Fall. ndeysaan sëñ Modou Aminta Fall. ndeysaan di ziar sama xalifa ak maam. Mm-hmm. muy Cheikh Assane Diop. Mm-hmm. di xalifam Cheikh Atoumane Diop. waaw di ko siyaar bu di siyaar Cheikh Ndiaw Sarr borom Kër Massar ak ñëpp rek di siyaar waa mouvement des Baye xam ne ñoom laa jiite très bien daara si Modou Fallil Fall mm. Man Diop très bien di siyaar Baye Saliou ñoom Serigne Cheikh Sarr maire Fagnang sama yaay soxna xewe ñanga ñëpp rek ndeysaan kulim da ngay jum ndeysaan di siyaar ñi ma àndal nag ñuy waa groupe Touba Congo très bien waaw boo digga Touba Congo mooy dëkku Cheikh Atoumane Diop waaw Cheikh Man la Cheikh Rafaan njëkk a seexal mm. sama baay mooy ñaareelu xalifaam mm. kon ñun Baye Fall duñ ci lor ngalam lañ ci. deug la waaw très bien. Mm. Ah, a deug na deug loolu for na tubarkal dara man ta fay li ci aduna de ngeen li sang bi wax Ousmane Baye Fall li wax reyna neena nee na Baye Fall ngalam lañ ci duñ ci cioma wax nga deug Ousmane ba tax na tubarkal yàlla na yàlla wëral baat bi fan bi plateau bi bismillah sama lanu wala sin sali wa واو واو واو واو واو, لا إله إلا الله لا إله إفال إلا الله لا إله إفال إلا الله شيخ برفال فال يودي باي والأولى لا إله يفعل إلا الله كسب ممسور فعل شقات منجوب فلغور دي تدابي Ibro Faal yow de yaay baal yàlla Cheikh Saliou yow de yaay baawaaw yow de yaay baawaaw ilaa ilaa ki yàlla ilaa la Cheikh Atumaan yow de yaay baawaaw yow de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 borom Mbàkke bare ba Serigne Saliou am na maasam borom Mbàkke bari amoo maas borom Mbàkke bari amoo maas maam Serap Falampu babu muridina may sebi ke kumba faal ma dege ndemba maam Serap Falalu doy seetaani be a jafoo jom jom jam moo na dogo a doxoo إله إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا شعات معنا با بروب جوجو جو بابا شعات معنا ما سب بروب جوجو أماما بروب جوجو أماما أماما آه، amo más. Amo más. Cheikh Atuman am ah, na maasam. Borom congo amo más. Borom congo amo más. Maam Seraf Alambo Abu Muridina may sa bige kumba faal. May sa bige kumba faal. May sa bige kumba faal. mai sabige gumba faal mai sabige gumba faal mai sabige gumba faal amam shera faal alu doy she talibe aje fo jab jab muje mo na dago ado ho wow wow la ilaha illa la la ilaha illa la لا إله إلا الله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 Saliou Mbacké ba borom Mbacké bare ba Serigne Saliou am na maasam borom Mbacké bari amoo ma borom Mbacké bari amoo ma maam Serap Lamp Babu Mouridine bay sa bi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 waxal laa ilaaha illallah ma dégg. laa ilaaha sama xol baa ngi see dugg yi Sëriñ Bamba man lu neex rek laa bëgg. bëgg la luy génn rek jëm ci sang bu tedd boobu di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nekk luy neex ci xol tey neex a dégg dëgg la Ousmane yàlla na la yàlla lafal cat amiin amiin yàlla na la yàlla sàmm ah yi de maa xeetu bàkk wi bàkk bu jaar yoon yi xeetu kele ah gëj naa ko dégg nag kay maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla wéral seeni cër loxo yi yàlla gën a wér te gën a neex te gën a bar gën a gaaw ci barke Serigne Touba kontaan naa loolu Baye Ousmane Baye Ousmane xanaa ngi tàbbi ci waxtaan bi nag tubarkàlla la may tàmbalee ci di la laaj uh-huh. bëgg nga tontu ci mu jëm sama digganteeg yow jëm ci digganteeg askan wi nga xam ne ñoo bàyyi seen lépp fépp ñëpp jàkkaarloog seen donc muy ñun ñaar ñuy toog mbooloo mii fi daje ngir seetaan nu Baye Ousmane ma ci profité di nuyu sunu yaay Baye Ousmane kër goo dugg sunu soppe yaa nga fa di ay mag te bi war fekk ñu def seen régime lekk lan war a lekk ba tëdd nelaw waaye nag ñu ci lal fekk Omaro mu Cheikh Béthio jeexul ñu nekk yaay yu baax nanu xam ne yëg naa ko ah. ndax bu nu ma mënul jot sax wax ko seeni doom ak seeni jarbaat ak seeni dëkk ñu ngi gis ñu ngi ma koy wax bépp nday bu toog këram waroon na nelaw baa waroon na ci leneen defe ko mu jàkkaarlu ñun jëm yi xeeb yi du ñu seetaan ngir sopp gim nu sopp ak ngir bëgg gim ñu bëgg na ko wër na ñoo ko raw te nag na ko wër na ñu ngi koy delloo njukkal it ñu ngi koy sargal te bis bu nu yàlla wanalee ak moom danañ jël suñu tànk dox ba ci moom këram ñëw seet si ko saafante ak moom ba Ousmane damaa bëggoon xam si kar nga xam ne yaa koy rëkkati jëmale ko ci sang bi lan moo nu ci dugal maa bëgg xam ndax si quartier dafa doon loo xam ne ndax lépp suñu borom waaye ndax dafa doon loo xam ne da ngaa xëy ko def man dafa don lo xamne ne mbokk la rek la ba da nga judd fek ñen sa njaboot ak ñen ci sa waa diko di def lool la bëgg nga tontu ma ci. waaw maanaam sikar euh, si dafa don lo? xamne dañ ko doon suñu mam Cheikh Niang. Hmm. dëkk Ridis mbeddu keur ki ne la mi dendal. kok sa mam la sa mam la. mo jur kan mo jur sama wajur bu jigen très bien. doonoon Bilalu Diakhaje ñëpp xam na ko. Laaji Cheikh Niang. di nuyu baax sunu nijaay gi si kër gi di xalifaam Serigne Sayri ña di ko baax. moom danaan jàng xasida ay boobu dafa jiitu sunu judd. Hmm. bu ñu juddoo nag ñun doon Baay Faal. très ndax kuy sama am nga ni Cheikh Atman Diop. moom la Cheikh Ibrahima seexal ñu dëkk Congo Congo mooy dëkku Cheikh Atman. fan la Congo nekk. Congo boo dee ba Ndula. da nga dugg biir Ndula boo ko paasee si biir ñaari kilomètres si biir. très bien foofu fooy Congo. Hmm. fa la Cheikh Atman dëkk ñun ñuy ay Baay Faal. ndeysaan ndax sunu famille amul musique. dëgg la ñun Baye Fall lan xam. très bien wu na si yëpp sikkur laa lan xam ceet sikar. Mm-hmm. ngénte sikar leen a leen tudd yàlla. dëgg la waaw sikar daal ñu ko doonoo sunu maam. waaw Cheikh Niang maanaam ñoom si jagleel nag. Mm. ndax umur ba nga dee dund ba léegi mosoo dégg ko baatam naqar ba yàgg neex. mastaan waaw kon yàlla moo la koy jagleel. maanaam may la ko. may la dëgg waaw bu bu do bu tasee nag nga doon ko. Mm-hmm. maanaam day gën a neex. day gën a neex dëgg waaw dëgg la. ndeysaan ñu ngi ci am mbégte loolu tubarkàlla mm-hmm. Baye Ousmane bëggoon naa xam kañ nga tàmbali yëngu ci lii di sikar si ak sikar si moom noo ko jàppee yow euh, da ko jàppee looy barkeeloo rek ci cant yeeg daara yaa ngi ci leneen wala da ko jàppee loo xam ne si yëfi bopp la nekk loo xam ne euh, ci ngay dund ci ngay dox mooy sa xëy mooy sa mooy sa lépp. Mm-hmm. mooy li nga xam ne ci ci ci ngay yëngu. sa mm-hmm. œuvre bu dee loolu la bëgg naa xamit yan œuvre nga ci am yu mën a. Mm-hmm. daw ci télé bi wala yu mën a nekk ci marché bi. ngir say soppe mën ko jariñoo lu jëm ci wàllum vidéo clip wala lu jëm ci wàllum album ba single. Mhm. loolu laa bëgg nga leeralal ma. waaw sikar si comme laaj bi nga si laaj. maanaam ni ñuy faral di wax ñun sikar si. Mhm. dundeewuñ ko dañ koy dundal. dëgg maa ngi may àndal ak kuréel gi ma jiite muy mouvement des Baye Fall. ku nu soxla boo demoo suñu kër timis doo ñu fekk da ngay xëy di liggéey di am xaalis. waaw ndax xam nga dafa complété. Mm. ndax bukki dañ ne ko sukar ak kéré ak gété bu la gënal mu ne man buraake la bëgg. waaw bëgg na ñett yépp wa bëgg na ñett yépp ndax ñun dañuy tudd yàlla. Mm-hmm. def nañ ay clip ñett clip def na xoma ñent ñeent. très bien génne na ñett album ci marché bi. téwul dañuy liggéey. dañuy yëngu bu baax di xey di liggéey ci lan yor suñu kër. ndeysaan ci karatam ku nu soxla it bo ñé di nga def lu baax ñu dem jangal la ko. te yàlla tax waaye yàqunu suñu liggéey dara. très bien waaw yéen a ngi am seen métier mais teewul yéen a ngi sikar. teewul ñu ngi sikar bu baax di am ay programme di jàngir fu ne nag. di génne album kon ne ko yi defee. ndeysaan album kañ la génn. waaw mi ngi génn 2008. 2008 deuxième bi. deuxième mi ngi génn 2010. 2010 waaw 2010. troisième bi. troisième bi mi ngi génn màggal gi passé. màggal gi weesu ñu def si Zikru la boo xam ne amul xin. dëgg la da nga ko def Zikru la boo xam ne si karu démb. Mhm. ndax ñun dañoo mën démb mën tey. très bien waaw. wa legi so soppe bi nga xamne mom mi ngi jàkkaarloo ñun duñu seetaan te bëgg ci album yoyu fan la koy jëlé wa album mom bari na ci marché bi ndax bo démé ban marché. marché yépp fo dem. Hmm. ni cassette mam Ousmane bari na ci àll bari na ci bari na ci marché bi. Hmm. mais amul ko xamne dal daal koy jaay. ko mëna joxe numéro am. koy jaay bari na bëgg rek. ku bëgg bo ko gisee ku mëni ku hmm. wala mohammed mi. ñom bo leen gisé di nga am samay cassette ndax ñoom daanaka sama lépp ñom ñoko yor. ak Serigne Khadim Diop sama mak di ko baax moom moo doon mooy jiite xëy nii sax. waaye jotam moo ko mayul. dëgg ko fekk poroxaan. dëgg la moo waral teewul. ndeysaan waaw. nga fàttali nu ko màggal gu mag gi nga xam ne tubaarkàlla mooy màggalu soxna jaara di waajuru ko tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di màggalu poroxaan ñu ngi ci ñaanal yàlla ñëpp yoonu jàmm. ñette yàlla dogal seenug teewaay ñëpp yàlla noonu dem ci jàmm te dikkat jàmm ci barke Xaadimu Mustafaa ñu ngi bégg lool ci sang bi sa teewaay te di ci am kontaan loolu di la ñaanal yàlla defal la jàmm ni nga ko leeralee leer na naañ lii lu ma yàqamti woon la ndax topp naa la ba sonn mm-hmm. naa la Ousmane dimbali ma ñëw ci émission bi dimbali ma jaar dimbali ma jaar fekk nag jamono yi yëpp newoo ci réew mi yaa ngi ci programme yi waaw di dem fu ne di rëkkati baat yi ngay rëkkati loolu la waraloon émission bi xaw a yéex am waaye nag rafetlu nañ ko mm-hmm. yàqamti woon nañ ko it bëgg nañ ci loolu. dëgg la ma dégg nga taxawal programme bu mat lu 8 mars. waaw. loolu nu mu demee. loolu mi ngi doon sant Serigne moodu Aminta Fall. très bien. ñu ko xam sëñ Modou Fallou Fall nangu ndigal. Mm-hmm. doonoon premier set boo xam ne moo toog xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ndax damaa jiite géejewaay daayira sëñ Modou Fallil Fall Touba Mendogu nax géejewaay. ndax suñu asan mu suñu Mor Aminta mooy sama Serigne. Mm-hmm. bu ñu demee laaj ko ndigal ñu ko Fall ñun kat dañoo bëgg taxaw daayira sëñ Mor Aminta ñu am nit de fu mu ne war na faa nekkal sëriñam. très bien jox ñu ndigal. bi daayira ba am juróom-ñetti weer suñu kees boobu mi nga am cinquante deux mille. ndeysaan mu mel ni damaa yëg ne si mënoon dafa fi bëgg ma di bàyyi faal yi nan dem kees. ma déedéet kees balaa dem fu moom at ma leen nan dem yóbbu kees gi rek li fi jot a ne jamono wóorul. ndeysaan bi ñu demee yóbbu ko jox ko suñu morom de siyaar ko jox ko suñu àddiyee mu ñaanal ñu jox ñu ndigal. jox ñu déguisement yéen war a sol muy tënee daayira bi mm-hmm. xam dañ koy sol muy noir blanc bi ñuy sol sax ajjuma xamal ñun nag daayira bu dee dëgg dana dem bu dee du dëgg du dem mm-hmm. si loolu naan taxawalee ba taxawal cant yi muy chaque année muy mm-hmm. samedi bi di ñëw bu ñu koy defee géejawaay en face école Souleymane Baal di ko yëgal ñëpp nag suñu Assane Fall mu suñ Moraminte Fall fa lay ne ak Serigne Saliou Mbacke mu suñu Khadim Mbacke na fa teew Cheikh Ndiaw Sarr na fa jànkat yi ñu ngi woo ñëpp tuddukate yàlla yëpp bàyyiwul kenn ndax ñu suñu cant amul kat def jànkat ndax jàng yoonu amul frontière ndax boo defee omoro rek maa Ousmane bu ko léeree gis si boppam dana ni koy yëgal ñëpp nag képp kuy seetaan émission bi ñu ngi la koy yëgal muy samedi bi di yëm bu dellusee maanaam day fanaan ba fajar tudd ko yàlla yëpp fa teew omoro dina fa teew ah, waaw ak ñëpp rek ko lim dagay ngay lima li sa émission sax mo waral ma tudd la waye yow di nga fa tew ak ñeneen ak mm. do lay Cheikh rayen Fall mm. bu ko ñoo tudd kenn di bay kenn mu ma ni ndax lay ñu ni bo bass amna ku ko bassal ko baasal cant yi dafa cant sëñ Mor dafa def ay benn yu bax mm. ndax sëñ bi dañ ko cyant ñu doli la deug la ndax air bu gaa daan jàng si jonan ko juroom ñaari kilo nga jëk santé sant waaw ci cuur nag yi dul jeex dëgg la ne benn soxna bu ko daan jang bobu yag na def na côté 93 bobu ay xale lan la du mak lolu ñu koy fàttaliku kon te Cheikh Rafal daana wax dabe ndab. dëgg la Cheikh daana wax mm. dabe ndab. Mm. kon maanaam cant yi na nawee bende nañ xëy wàcce kaamil. Mm. nañ jàng xës nañ tudd yàlla nañ saam faal. très bien waaw ñu ngi koy yaatal ñëpp daal doole Cheikh Rafal. ñëw waaw. ah maa ngi ci woo soppe yëpp. di ci woo murid yëpp di ci woo Baye Fall yëpp. di ci woo it jullit yëpp ndax incha allahu rabbi danañ ca teew danañ yóbbu suñuy bagages it duñ fa teewee ki noppi neen rek ak i boppi neen danañ yóbbu suñuy yóbbu suñuy njaaj yóbbu suñuy bagage feesal ko ba mu fees dell dem joxe suñu participation ci bés ba ndax Baye Ousmane mii day suñu xarit di suñu soppe suñu wëllëre di nit yàlla baaxal di nit koo xam ne it man li muy def la te di ko ci temps kon moom bu ñu woowee lépp lu mënoon danañ ko bàyyi te wuyu ji ko na nga xam ne ñi ngi ñëw te nag ñi ngi woo képp kuy Baye Fall képp kuy sikarkat baa ngay jàngkat woon nañ la ci bis bi Baye Ousmane damaa bëgg xam ban way la gën a neex ci sa way ban way ngay toog di ko xalaat soxol di sedd guuy ngay bekk ci way gi nga koy xam nga léeg da ngay tok ba yag xalat way diw contane nax way waa lay neex mm. wa yow wan way ngay xalat yow ci sa bir way ba yag sa daw sa sedd ma bëgg nga wax ma tur way wi ba nopi nga leeralal ma way wi nang ko fente ak nu la la ak lu waral mu neex la ci yan nga jaar ba way wow saf la wa deug la way ma gëna neex sax amaana du so way ndaysan way bay baram bobu wax sam gom ndeysaan waaye yi ma fent tuddul Sam Ngom mm-hmm. Baye Baana ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk leeram ndeysaan amiin bi mm-hmm. waa lonkaan di ko baax dëkkoon yëmbal gi daañu daan jàngal suñu dëkk maam congo très bien maa ngi ko njëkk a gis ak dëkk si aan maan 93 boobu 12 ans laa am di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram mm-hmm. di ko xool di ko siifur di wut ay kaccaram ba am ko di ko di ko di ko imité boo seetloo euh, sama premier cassette si karu Sam Ngom Soos laa ko def premier clip bi bu gisee maa si ñaq bo xoolee technicien maintenant am sama di ñaké man ko bàyyi nonu li demb la. dëgg la waaw bay Sam Ngom boobu dafa doon na lo xam ne ma gën neex sama jikar mhm. woon na Cheikh Rafal. ndeysaan waaw mën naa ko dégg. waaw mën ko dégg karu demb la. bismillah la bisimilah. laa ilaaha la laa ilaaha illallaah. surufa laa. شرفا لولا عرفا لا إله لا لا لا إله إلا لا سورة مام سيجاي برم چونگو جوب لا نعرف الله إله إلا الله لا إله إلا الله سور مام سيجاي شيخ إبراهيم نعرفه faal suuro maam siijaay naara faal laa ilaaha ilaaha laa Cheikh Ibra Faal suuro maam siijaay Cheikh Ibra Fall suru maam si survival, survival. Narval, la ila la ila ila ila la Wow wow. Sheikh Raval. Narval, ila ila la. واو واو واو نربا لا إله إلا الله survival. La la la la la la la la. waaw waaw waaw waaw waay lii la buy awaan waawaa yaay barmaan yaga baa suru maam si yaay lii la buy awaan waawaa yaay barmaan yaga baa suru maam si yaay tubarkalla tubarkalla foor na li dara mënu koo fay ci àdduna bàkk boobu ñu tëjee nag mooy bàkkum yaanuy moom sëñ Bamba yaanuy moom bu ñuy dund ak calonu dee lépp yaanuy moom barke sëriñ Bamba kooku xaadim Musaa tubarkalla ku tedd kàngook ku mag kàngook kenn kàngook laa ilaaha illallah jàmbaari diine ji jàmbaari lislaam ji jàmbaari Seydina Mohamed ji moom mi duppee boppam xaadimu rasul xaadimu Mustafa sang bi lu ko sant de sa bor yàlla nañu ko fayal Baye Ousmane kontaan naa loolu ci sikar si sama xol sedd na ci lool xam naa fi sikar si jóge xam naa li nga ci ci album ak ay kaset xam naa it li war ci sa programme bi le huit li ma desal nag li dox sa diggante ak sa wasila maa bëgg nga wax ma kan la ki nga xam ne moom nga jébbal sa bopp mhm. ndax yoonu murit moom kon a xam na ne jébbalu la maa bëgg xam yow fan nga jébbalu ban kër nga bokk waaw man maa ngi bokk fi ma jébul mooy kër Serigne Modou Fallil Fall. kër Serigne Modou Fallil Fall borom ñaari Baye Fall. très bien. si doom Serigne Assane Fall maa ngi ko ziar baax. ndeysaan di ko ñaanal. Uh-huh. mu dund at yu bari bari. amiin Fall doole Cheikh Fall. amiin Fall yàlla na ko fi yàlla borom mooy sama Serigne. waaw ma bokk kër Cheikh Atoumane Diop. Mm-hmm. borom Touba mm-hmm. mu ngi premier cheikhu Ibrahima Fall. Mm-hmm. waaw di ziar ba xalifa bi Cheikh Assane Diop. ndeysaan mu yàgg fi lool di ziar sama xalifa ak Baye. amiin Serigne Pape Cheikh Diop. amiin waaw mu yàgg loolu moom it wér. amiin yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg loolu te gën a wér moog bépp sang ak bépp kilifa diine bépp kilifa aada bépp kilifa cosaan yàlla fi yàlla bàyyi ñëpp ñu yàgg fi loolu te wér ci barke Xaadimul Mustafaa Baye Ousmane bëgg naa xam li dox sa diggante ak Serigne Fallou ak kañ nga jokk ci moom ci saayar ci baatin nag lépp ci la waaye ci saayar kañ la bi tàmbali ak lan moo dox ci ànd bi ci loo wax ndax ku ne am nga loo dox sa diggante sa sëriñ waaye daa am waxi nekk am waxi wañ am waxi sal am waxi cour am waxi mbedd wa dama bëgg nak li nga xamne moy waxi mbedd nga xamne bi mënu ko dégg nit ñi tok seen kër dégg ko nga wax ko ci sa digënt ak sang bi wa manam li dox sama diggante seigne Assane Fall moy Baye Fall rek xam Baye Fall mom moy Baye Fall ndax Baye Fall dafa teungu ci ñaari kaddu moy roy ak rombu deug la lu bax royal lu bon rombal très bien da digna amna bis nongali sa yorombe be ibra nang ko jefal sa ko rombe nang ko jefal seeru na ehe bismillah jàmm a doom ma jere jef jërëjëf jef rek fexal jef joj mo wax lako ko benn gi xolat la kon bay fal yombul hmm. bay fal yombul bay fal lu jefe la ndax Cheikh Ibra kër Serigne Touba xëyul xëy rek tok bam am fa lii ma am mouride Muridiina gi mu doon maam da koo jaayante hmm. ñun nak bis bi ne ci loolu nañu xol mel ni maam Cheikh Rafal moom yombul te fi gars yi séntu maam Cheikh Rafal newul foofu maam Cheikh Rafal noobul la bay Fall day silvisé dama koy wax chaque jour fu ma mën a invité kenn maa ngi benn télé barki démb Baye Fall day silvisé di sol lu rafet Baye Fall noobu la noobul la ku dul Baye Fall Baye Fall moo la gën bu nu waxee loolu mooy boo gisee kër sax ka gën a nangu nañ ko tuddee mooy Baye Fall mm. te Baye Fall suñu borom daa jël gën a bon doomu aadama jëlee ko si moom muy agréé. ak naafiq lolu sun borom jële ci ak Baay Faal te li jaxal gaay yi bari moy ñak julli gi ak wor gi te am bi Cheikh Abdou Khadir Mbacke Baay Faal ko di tuddu yalla mm. Cheikh Abdou Khadir ehe eh, ci Baay Faal yi du musulman mukk fo leen fekk ne ñi nga julli kon Baay nobul noobul la ko nan gën gurgul wat man ak maa Ousmane no Baay mel neex na ma mm. ku koy nduru ndurul sax momo gënal ko ko donul man gëmal seigne touba gëm Cheikh Rafal no mën di mel neex nga ma mm. kon nan gën gurgulu gën a jaamu yàlla ndax Cheikh Ibra bi mu nekkee ndar dégg naa amoon na fi quarante cinq magasin daraan liggéey ñun boo gisee ñuy liggéey di ko boolee si kar si léeg-léeg xool mag mu jegewoon Cheikh Ibra mbaa ku ko xam ngeen di gëstu moom mu xamal ma ñu Cheikh Rafal daana liggéey daana def lii daana def naa di ko xool tam sunu sëriñ sëñ Assane Fall mu suñ mu labinta Baye Fall noobul la Baye Fall du tux mm. Baye Fall du naan mm. Baye Fall du kiris koros mm. Baye Fall du tilim Mm-hmm. du mel yenn melokaan bi. Mm-hmm. waroo may melokaan boo xam ne boo jegee sëriñ bi sax njàppam toj. Mm-hmm. loolu du Baay Faal ku doon góorgóorlu baax doon dëgg-dëgg Baay Faal di roy ci Cheikh Ibra. xam ni sëñ Bamba damay faral ne Bamba am dënd la. bu doon am dënd dënd Cheikh Faal ba koy tëgg. dëgg la waaw sëñ Tuubaa mooy galañ ba koy tëgg kon Cheikh Ibra moom moom lépp la te Omaro ni nga soloon yi xaw koo daamine sante ko Cheikh Faal. ndeysaan jërëjëf booy dingat Baye Fall bul sol jaxas. dëgg la li nga sol jaxas la. dëgg la te Cheikh Ibrahima bi ñu sol jaxas. defewu ko jël ay ay mooso di ko boole. Mm-hmm. day liggéey suñ jubaa ba fenn xottee ko mu jël su kool kaw fenn taf fa. noonu la ko def ba mu bari. kon boo gëmul Cheikh boo soolee yéree bu ko daamee ne zone laal nga Cheikh Rafal. dëgg la de. waaw wax nga dëgg. Cheikh Ibrahima mooy lépp tubaab bi grammaire ñu ngi ko jëlee si Jazbul Murid. Mm-hmm. waxtaankat yi ne fi mos a séedee kuy waxtaanee Jazbul Murid bi Cheikh Rafal bind. déedéet. xam-xam ba mu bind moo leer te bi ñëw ko suñ Tuubaa jàng na ba wàcce kaamil juróom-ñaari yoon. est-ce que gars yi pour ñoom Baye Fall waroo jàng waroo sell waroo wérd waroo sol lu rafet Baye noobul la li baax li Baye Fall ko moom wur na Cheikh Fall. Hmm. bu doon noonu maam Cheikh Fall bambareer jàmm ñi bi waaye boobu ku ne dégg na ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ni du lu ñuy wax si rajo. Hmm. kon nañ góorgóorlu man su ma gisee Baye Fall bu silvisé ñi may àndal laaj leen li ma leen njëkk mooy ku si na nga dem liggéey ku ma si woo programme man maa Ousmane am xëy demal xëy ma woo keneen ndax ñi ëllëgee boo ma invité mën ngaa gis ñeneen tëkkat. Mm-hmm. yor naa la mat cinq groupe ñëw barke ñooñu yeneen leen liggéey leen jàpp indiwuma leen ñii bu subaa bu leen liggéey jàppee dañuy toog ñeneen ñooñu ñëw. dëgg la Baye Fall day liggéey di ma di mm-hmm. teel a yow di tudd yàlla bu baax jàng ay salatu ala nabi jàng ay basmala waaye doon Baye xamoo lenn. mun la laaj maanaam si Cheikh Ibra xamoo ko Baye Fall day gësu xam lan mooy Baye Fall ñun nag xëy na Cheikh Ibra daan nëbb suñu lu bon ne suñu lu baax moo hmm. war a ñoom fi du wax waaye na ñu sëriñ bi delloo dimbali ñun ñëpp te yàlla yàggal la fi. amiin ndax ku baax nga ndax li gën a jafe mooy baax si sa te yow baax sa succès. barke ku baax nga ku woyof nga ku bëgg mbokk taalibe yi nga. Hmm. Hmm. waaw ndeysaan yàlla nañu la yàlla fayal sunu xol sedd na ci loolu maam Ousmane ñi ngi bëgg loolu tey nag di am mbégte di amaat kontante bu baax a baax ci dalal la wuñ ko benn yoon waxoon nga ma ko ne woon nga ma bis bu nu toogee lu bari lu lënt nit ñi ci mbay Fall dinaa ko leer la leer na naañ nii nga wax ne nii la Baye Fall may ku ko meloo mbay Fall nga ku ko meloowul nag xamal na yaa tuddee sa bopp Baye Fall waaye doo Baye Fall wax ji leer na naañ ñu ngi ci am mbégte nag yàlla def nooy Baye Fall waaw yàlla nanu yàlla def ay Baay Faal ci barke Xaadimu Mustafaa sëñ Ousmane bég nañ loolu ci teewaay bi sunu xol sedd na ci lool ñu ngi la ci sant ñu ngi la ci gërëm ñu koy sargal di ko bégee ma nga foofee ci aéroport moo yaayu Babacar Sàmm di yaayu Maymuna Sàmm ak Lamp Fall sunu yaay jooju député bu mag bi le Ajaa Ngoona Ndoy ministre bu mag bi la ñu ngi koy nuyu du nuyu ministre Mariama Sarr sunu soppe la sunu yaay la yàlla ko yàlla dafa jàmm ñu ngi ziaret ki nga xam ne mooy xaadi Mbay jàmbaari géejawaay ji sunu géew lu judd bu baax bi mbokk yaay Fatou Mbay mom xaadim yalla ko yalla dafa jamm ci barke Serigne Touba ñu koy bëggé lu bari bari te nak diko sargal bu baaxa baax di ko ñaanal yalla dafa ko jamm ba ba Ousmane ma ngi am lool di nuyu sopp yi nga xamné ñi ngi nekk ba pare duñu ñu ku ci mel ni Cyril ki nga xamné moy Cyril Brugier ab nasaran la ma nga nekk fofu ci Lyon mi ñi seetaan ak Pascalina soñi Pascalina soñi ma nga nekk fofu ci Lyon ñi ay doomi ndey lañ ci ki nga xam moy babakar jaay sunu bu mag bi le nekk ci Lyon dëkk bu tedd xam ne mooy Cyril Brugi ak Pascalina soo ñi ngi leen sargal bu baax a baax di leen ñaan la yàlla defal leen jàmm Baye Ousmane ñi nga am mbégte nag ak ak xol mu sedd ci dala giñ la dalaloon sunu xol sedd na trop wax dëgg yàlla lu neex nag du doy te li nga xam ne moo duuf ci nag wi xajul ci ci cin wi daam nag geneen sikar gu ñuy tëjee muy sikar su la gën a neex waaye laataa ñu koy tëjee danu lay bàyyi nga tàggatoo nuyu ña nga war a nuyu sant ña nga war a sant gërëm ñi nga war a gërëm bu ko defee nga tëjee ko bi. waaw euh Omaro kontaan na lol yon ma lay sant baax di ñaanal di ñaanal ce technicien yep cameraman yi yu yag fi lol di sant bax Serigne Salim Mbacke mu Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Mbacke mu Serigne Touba di ziar rakam Serigne Galas di sant sama Serigne Serigne Assane Fall mu Serigne Modou di sant Cheikh Assane Diop khalifa Cheikh atouman Diop di sant Serigne Bada Fall mu Cheikh bachir Fall alcorane Serigne Bada Badil mom daf ñuy badil rek Fall ko bax la di sant bu tamit euh, Cheikh Saliou Diop di jëwriñu Cheikh Atoumane Diop di ko ñaanal di sant ñep nak di sant sama yaay jo xamni muy ko baax xamni bokku ñu diiné muy soxna Kelemas xam da si japp bu baaxa baaxa baax di jaar di mambu so jeng mambu so Ñang ñom Penda jeng di ciar sama yaay di ñaan mu yag fi di gërem wa groupe Touba ci nga ma andal seigne tala Seen ak Muhammad kebe seigne Mbay Mbub euh, mohammed Doudou ak Mansour Aliou Cheikh Modou ak Mam laye ñom ñep rek ak Moustapha Kane mu Cheikh Ndigal Fall ak Pambay di ziar ba Serigne Dame sama rak di sunu caat ñu ziar bu di ziar ñep rek di ñaan cyand yi ni jubsu ya nañ si am ngërëm Serigne Touba Cheikh Rafal amin amin amin di yëgal nak mbokk di ne leen eh, tay sunu ñu ko réparer nak mu jul soti mo waral tay appel bi eh, mënu dik ba soppe mëna wax ak Baye Ousmane mi ñi ngi lañ koy jéggelu baax baax di dem nag ba Gambia nuyu sunu soppe yu baax yooyu nga xam ne sunuy xarit leen sunuy séex leen sunuy doomi yaay ñu ko Bafa ak Abo di di def liggéey bu am solo fan yi ñu nekk Sénégal tubarkàlla amoon liggéey bu am solo bu leen fi bàyyi yàlla na yàlla dafa jàmm muy Fafa ak ki nga xam ne mooy euh, mooy mooy fàtte soxna Aida Mbacke kooku sunu soppe la sunu sëriñ la tubarkàlla mooy jigéenu Médoune Lo ca Sacré Cœur ñu koy ziare bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm tey di Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye salaam ji mooy def yu baax yi tubarkàlla damaa bëgg na képp ku ci bëgg rek na nga woote ci numéro bii di 77 022 62 57 77 022 62 57 77 022 62 57 loolu mooy numéro Babacar Ndiaye numéro ki nga xam ne mooy euh, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall nga xam ne mooy suñu sponsor leader li ma leen waxoon rek sànq ci produit bi képp ku jëfandikoo cigarette di tux baa ngay jëfandikoo ndox mu saf xorom mi bëgg koo bàyyi te mu tëla jottali ma ko te mu tëla incha allahu rabbi bu neexee yàlla yónnent bi ak Serigne Touba. boo xëyee suba ba borosu ba noppi ba jël ci sunguf si borosu def ci say bañ raxas yàlla dana la taw féexal dana la dimbali ba di nga di nga di nga di nga di nga tàggali ko moom cigarette moom keneen a koy tuxati ci àdduna waaye di jëfandikoo ndox moom waaye dootul yow ba tax na gars yi wutu leen ko ku ci bëgg am nag numéro bi mi ngi ci 77 646 41 21 Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall 77 646 41 21 77 646 41 21 di nuyu Ameth Touré sunu bijoutier euh, sunu bijoutier bu mag bi ndeysaan di nit ku baax yor place foofu ca marché Tilène nga xam ne moom may jaaru bu rafet bi ndeysaan moom Ameth Touré di sunu soppe di góor ki nga xam ne mooy soxna Tina yàlla na lañu yàlla defal jàmm ci barke Xaadimu Mustafa ñi nga am mbégte ak kontaan ak xol mu sedd guy émission bi nag dañ koy may sunu Baay Faal sunu Yaay Faal di jàmbaari top chimère ji madame Diouf chimère di ko may borom këram mi nga xam ne Baay Faal bu mag a mag la di tonton Diouf chimère yàlla yàlla defal si karal ci sang ne bi ñu tëjee ko émission bi. waaw ki ni tëjee mooy Serigne Fallou Mbacke borom dindi. ni ko yàlla def ku mu neexul. yaay ki reere. yaa mbeen galaso ah baayu mbeen waaw waaw ndeysaan ku sopp sëñ Fallou Mbacke jugal yëngu waaw woo garaso ni ko yàlla def ku mu neexul yaa ci reere yaa reere baayu meen galaso aa ah, baayu meen waaw waaw ku sopp Cheikh Béthio cu maam Bam mi caam waaw waaw waaw waaw dootu ko dooleeti walaaye ah baay bi e. waaw waaw ku sopp Sëñ Fallu Mbàkke jugal yëngu waaw waaw waaw waaw waaw waaw Sayar Njaay Amadou Fall Sayar Njaay Amadou Fall Sayar Njaay Amadou Fall Sayar Njaay Amadou Fall Sayar Njaay Maam Seera Fall Lamp Baabul Muridiina kooku moo xam dëgg dëgg dëgg maam Faalu la yaay baay biir waaw waaw waaw waaw ku sopp Cheikh Ibra jugal yëngu waaw waaw woo tey nga may soxna may gër gi may yow aa des may gërëm baay beel waaw waaw ndeysaan yaay ki reere waaw waaw tega may soona may gën gi may yow aa dese may dara may fal ko buuro sopp sëñ Fallou Mbacké jugal yëngu yow laay tiitaroo jaarawaay Cheikh Béthio Thioune sa kam ba Cheikh Saliou amoon Bara Fall moo leen doon may seen émission cant gi te di leen ñaanal màggalu poroxaan nekk fa ak jàmm ñibbisee jàmm